L'une de mes premières missions, ce n'est pas de construire des routes, des autoroutes et des ponts. La première mission, c'est de reconstruire l'état de droit. Or, l'état de droit, on va l'apprécier de façon immatérielle. Ce n'est pas un bâtiment qu'on verra pour dire ça, c'est un état de droit. Mais ce sont des valeurs, ce sont des principes c'est l'égalité des citoyens devant la loi. C'est la lutte farouche contre la corruption et le népotisme. Euh, le Sénégal d'Al xam naa ne ñi fa nek jaaxalu mais man de j'ai très peur pour le Sénégal très sincèrement tiit trop trop trop ci li xew ci réew mi ak ci li fa nar xew parce que dal Euh, doxin bi ñu wax ne dañ koo dañ ko ci la ñu tënku di ci dox mooy démocratie gis naa ne yàqu na lool euh, damay dégg toujours aussi sénégalais yi di wax waxu justice nangam ak nangam la justice elle n'existe pas au Sénégal elle n'existe pas euh, musuma gis man yàgg gu ma fi yàgg googu mais Euh, régime Abdou Diouf amna luma ci xam régime Ablaye Wade fekkee nako jeex mais musuma gis président bu am audace bu tolni bi Macky Sall am j'ai jamais vu ça de ma vie euh, Macky Sall ni muy ni muy ni muy piétiner Sénégalais yi à travers la justice euh, ni mu amé sañ-sañ ak doole ak katanu lu ko neex def fi mu man très sincèrement je sama euh, il n'y a aucune réaction concrète euh, mais li ni li xew Sénégal actuellement ni, que jaaxalul ma ne quoi man man dama man defuma live euh, parce que dafa am lu man dama rek en fait j'ai juste peur j'ai très te ñi ma xam maa ngi leen koy wax boobaak léegi man dama tiit ci sama réew ci li nar a xew senegal ti am naa ci tiitaange trop gis naa ne dañuy dem ba pexe dootul am rek ñu door a toog nag ni lii nañ ci wax walla nangam ak nangam ak nangam jeune ne veux pas être quelqu'un qui a des idées mais li ma gis nii man wax dëgg yàlla tiital na ma tiitaange joo xam ne musuma am yëg-yëg ne sama réew nekkee na nii en danger barke Serigne Bamba Mbàkke pour man senegal fi mu ne nii mi ngi ci danger bu metti ndax kersa moo amatul euh, kersa amatul parce que Macky Sall ay mag la àndal waaye mag ñi mu àndal du ay mag yu koy digal jàmm du ay magit yu am kersa ndax euh, man bi ma dégloo Moustapha Niass di wax dama rus mag mu toll noonu euh, nga xam ne yow ki ngay waxal jàkkaarloog moom sa moroomu doom la te mënatulaa defal ci àddina teraanga ju ëpp li nga am euh, nga naan ko ku la contre itam buy dem Touba ilaa Touba lay jaar loolu ñak respect ak ñak worma ji mu ji mu woné ci ak minimiser gi mu minimiser euh, mourid yi ndax loolu peut-être non la ko gissé pour man dafa am lu mu cibler rek wax wu ne peut-être bu féké sax ñi la contre ay mourid lañ wala mourid mo la contre tamit tu t'en fous parce que def nga tali bo xamné ak nu mu mëna a tudd ay ila touba ak yoy yépp ça importe peu Le jan sav ke le zeta n investis pa, paske denyo bege, Senegal mom, khamnen yone, ken mousou ko yor ti, ne li namo ko iset, ba mou doy seman rye ou ma def ko, dedet. Alalji, denyo ko lep, deko def fo khamnet, denyo ko fay def, ngir mou genewat ko, nyou fay ko. O touroud bi, tenyo dindi ila touba bi, tenye te chanje touroud bi, paske tamit, man gis naa ne yabel dong la bëgg a jur ci baatu Touba te baat bi sëriñ Touba da ko tànn sëriñ Abdoulaye wax na fii ne aljanna la jóge du baat bu ñuy profané mais li ma gën a naqari sax du loolu mais mag ñi nga xam ne ñooy jàkkaarloog ak Macky Sall di ko wax ay wax yu suufe ay wax yoo xam ne ay waxi rambaaj kepp la ak waxi jaxase tey jii lii mu def Khalifa Ababacar sàll man li ma gën a tiital mooy sénégalais bu ne dama koy wax toujours bo jullit nga wala katolik nga am na foo bokk daal am na ñoo xam ne sa ay mbokk lañu xalifa Ababacar sàll am nay mbokk ci réew mi am nay mbokk am nay kilifa ci wàllu diine mais daal man sa silence euh, xawma ndax maandu te la xaw ma lum doon man daal damaa gis ne Sénégal léegi kuñ ci jàpp ku ci makki Sall jàpp di la néewal doole kenn du jóg dañ lay seetaan noonu rek dañ lay seetaan ak moom xaw ma ndax dañ ko ragal man xaw ma ndax dañoo ragal Macky Sall xaw ndax dañoo dañoo bëgg a bàyyi mu toroxal nit ñi noonu rek du am benn suite du am benn problème. Euh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le silence des religieux. Je ne comprends pas le silence peut-être même de l'Église. Je ne comprends pas le silence de ce qu'on appelait la société civile au Sénégal. Mandal Demain, ne nit Sénégal ne ce n'est plus de la démocratie parce que à six mois des élections nous avons une campagne de quatre à cinq mois pour parrainer Nous ci jógee une campagne d'un mois pour élire un président un programme d'abord amul sax un candidat bu am certitude de sa candidature de justice amu aujourd'hui sa candidature day buñ ko déjà yow bu ñu la dàqee c'est-à-dire bu ñu bu ñu renvoyer sa candidature tu n'as même pas le temps de préparer un recours wala quoi que ce soit pour dougalat ko pour pour pour pour mën am chance dem ci échéance électorale yi yeen li kenn du ci wax kenn du wax ci li amna kilifa diiné yi mënuñu woo seen sen xaw ma ñii am ñu wax ne sen sen taalube la amna ñi man dal je comprends rien man je voilà voilà, je pète un câble, quoi. je ne comprends absolument rien de ce qui se passe au Sénégal actuellement. ni mais li du Soyons clairs, li du C'est vrai que Maki aujourd'hui, il compte sur l'armée sénégalaise. Le jour où il leur dira taper dessus, ils vont taper dessus, ils vont taper sur les Sénégalais. lës man de bill damay toog ba yàgg ma ne waaw man est-ce que man maay man maa paranoïaque di gis deret muy tuuru wala lii may gis est-ce que dëgg la senegal nañu waxtaan nañu wax ak Macky Sall na may nit ñi jàmm ak liberté ñu tànn nañu dimbali nit ñi lii ma gis du jur jàmm te du jàmm nit ñaa ngi ci ndox mi déjà ñëpp a doon ñaan taw te euh, taw bi yàllaa ko tëj te am na lum ci jublu dafa am ay nawet yoo xam ne euh, balaa ñu doon digle sax ay ñaan wala yooyu sëñ Saaliw dafa daan wax ne sunu borom di lépp lu mu dige bu waxtu wa jotee bu ko deful rek am na lu tax wax ne sikk si de ci nun la nanu tuubalaat sunu borom nanu sàkk sarax nanu tawasulu buñ ko masaan a def mu jël ay responsabilité moom moo daan jiital boppam ci tuub ak ci yàppu yaramam ak ci gàddu ay gàddul nit ñi loo xam ne kenn mënul taxaw ci réseau sociaux yi di ko wax waaye bu ko defee rek tuuti sunu boroom def yërmande man damay toog ba yàgg ma ne est-ce que ku yàlla rus mi ngi Sénégal parce que même bu fekkee tey yàlla rus na la te nga nga téye sa bopp rek ne man naa naa mucc rek wala na sama njaboot mucc lii dadul dadul ñun am réew lañu am réew lañu am réew lañu te dañoo war a xam ni njaboot gi ñépp benn lañu ñi ne ci biir ndox mi fi mu ne nii am na ñu nekk ci ay ñaari taw ñett mais ndekk am na ñu ne ci ndox mi ay at fi ne nii kenn jéemu leen caa génne te pourtant l'État parlait du plan Orsec il y a quelques années ndaamaatu laa mën a citer sax ci Touba ndaamaatu moom man ba ma xamee ndaamaatu ba léegi nawet bu jot dina am ñu génn seen kër mbal noonu ak yeneen quartier yi Touba yi tey da ngay toog ba yàgg sëtu sëñ Touba ne waaw milliards yi dugg ci dëkk bi fan lay jaar fan lay jaar mais bu sinergie amul bu nit ñi parce que tey gisatoo koo xam ne ci lim ne moo ko gënal jëmmi boppam ku ñu fal la ngay njëkk a xalaat mooy sàcc defar sa bopp Cheikh Saad bu maa lay maa ngi lay ziar ku ñu fal la nga njëkk a xalaat mooy sa njabootu bopp yow doo xalaatati ña nga njaboote nga tëdd sa kër di nelaw mu wóor la ne yow dañu laa dénk njaboot te njaboot googu am na ci ñoo xam ne ñi ngi ci biir ndox mi nga mën a tëdd nelaw ba doyal man daal gisuma la sens des responsabilité des élus que ça soit les élus locaux que ça soit des ministres que ça soit le président parce que man dama gis ne buñ la xesee ba fal jiital la ci biir mbooloo donte fukki nit la kenn ku nekk ci ñooñu moo la war a gënal sa jëmmi bopp mais gisuma benn benn benn patriotisme ci lii gis naa itam banque say yoxo di pas de néewal nit doole te tey ba sa Khalifa Sall a reçu dans son bureau tellement de chefs religieux tellement d'hommes d'affaires tellement de diplomates aucune réaction aucune Khalifa Sall a une belle famille Khalifa Sall a des frères des sœurs mais ils n'ont que leurs larmes pour pleurer mais ñi am doole ñi nga xam ne tey war nañoo mën dimb dimbali nit ñi wax ni woo boroom réew mi mu wuy si leen ñu ne ko ku baax yëf yi nii nga koy doxalee ëpp na mais Macky amul kersa amul kersa tey Ablaye Wade xoolal mu ngi toog ci benn ruq rek mel ni ab lay du du bibliothèque mi ngi mel ni Ablaye Wade tey c'est pas une mine d'or une mine de diamant ci biir cerveau bi ci ci xam-xam ci mën a yor am réew mën a doxal lu tax parce que Macky Sall lu jug na rek ay seytaane na ko ab lay wàdd toroxal ko waaye képp koo xam ne boroom xel nga nga gis lii makki sàll def Ablaye wàdd def ko ak njabootam soo àndeek moom te wóolu ko wéroo su la jekkoo rek dootoo ko dolli waaye moom it nag war naa xam ne ñi wëlbatiku woon ñépp ànd ak Ablaye Wade te war ko ñëw ci moom war naa xam ne buñ ko jekkoo jam ko paaka de man daal set classe politique la ce qu'on appelle am na ñoo xam sax du ma tudd seeni tur ndax barke Serigne Bamba siide naa ko je vais pas prononcer leur nom duma leen tudd mukk ci àddina ndax rus naa ko waaye ñooñu ay contre-exemple lañu et que la jeunesse sénégalaise doit prendre ses responsabilités aujourd'hui wane ne ñun bëggatuñoo gis xeetu nit ñu mel nii bëggatuñoo gis nit ku ñakk jom bëggatuñoo gis nit ku ñàkk ngor bëggatuñoo gis nit ku ñàkk diine bëggatuñoo gis bëggatuñoo gis bëggatuñoo gis nit mënuloo fépp foo xam ne sa weñ tooy na fa rek nga dem ne takk fa rek noonu yow yaay taxaw tey saaga nit ki ndey ak bàyyi yekk ko lu ne bu subaa nga dem di ko raamal di ko gërëm di ko sant di wane ne moo yor réew mi moo gën ci réew mi ñépp ñu doon saaga Macky sàll bi ab Ablaye Wade di doog a daanu ñoo wëlbatiku di ko saagal Ablaye Wade fi mu ne nii ek góor gaa ngi toog jàpp tranquillam muñ muñ gu rafet li ko li ko Macky Sall mii di def ak workat yii nga xam ne ñoo bàbbeeku rek jëm ca moom sénégalais yi nag dañoo war a dañoo war a xalaat nu some à six sept mois des échéances électorales nit ñi nañ seetlu politiciens yépp nag góor ak jigéen nañ leen seetlu ci jom ci ngor ci fulla ci fayda ci kàddu képp koo xam ne jóg na mu wóor la ne kii boppam a ko tax a jóg na nga ko jombale sa kàddu na ko jombale sa kàddu

Parce qu'il y aura le retour du bâton, mon cher ami. Mais j'ai très peur pour mon pays. J'ai très très peur. On dirait qu'on me dit que tu connais des gens qui vont mourir. Et c'est ça qui me fait peur. J'ai peur pour tout le monde, même pour ma propre personne. moi c'est le silence assourdissant là qui me perturbe Qu'est-ce qui fait que ce garçon se permet tout dans ce pays Tout, mais absolument tout. Macky Sall, est-ce qu'il respecte des élections Cet homme a été élu par un suffrage. Il prend un vulgaire papier, il le révoque. On parle de justice. Bonne justice. Macky Sall 450 ans 8 pour on est d'accord avec toi. Il n'y a jamais eu de justice au Sénégal. Et à ce rythme-là, si les gens ne concèdent à faire aucun sacrifice pour que ce pays-là reparte sur de nouvelles bases, wallahi azim du dem mukk liñ Sénégal doudem il faut une jeunesse déterminée jeunesse bu takou, bu taxaw bu man alal ngor la bëgg ak jom Li lañu nyo wara sunu mi nañ ko nañu góor góorgóorlu ñun jeunes yi seet ba xam nu ñuy def ba mag ñi nga xam ne am na juróom-ñett fukki at ak dem seen yoon banoog sunu réew ndaw ñi képp koo xam ne wóor na la ne alal képp la tax a jóg akum po nga abal ñu ñu liggéey réew mi parce que sénégalais yi am na ci ñoo xam ne bu senegal amul tuuti ci wàllu développement di nga xëy gis ay nit yu dee seen kër ndax xiif taw na dëgg la waaye nawet bi sa presque perdu te loolu bu amee dëgg-dëgg dina metti parce que état bi du prévoir dara ci ginnaaw des na tuuti rek ceeb ak diw kenn dootu ko mën a gis ci dëkki kaw yi ku am mbokk mu ne ci kaw gi booy for dara na ko xalaat na ko bàyyi xel na ko xalaat na ko bàyyi xel ñun nanu góorgóorlu te fonk dimbalante te xam ne kat amaguñu am réew de amaguñu am réew de lii ma gis lii ma gis daal du jàmm te ñu doguwul ci faj ko balaa muy am wallahi bu amee dina ëppi loxo te ku war a wax dina wax ñu saaga ko ku warul wax dina wax ñu saaga ko parce que ñaa ngi bëgg a sës ku ci ne xool ko ci sa bopp bu fekkoon ne yow lan jekku di la toroxal nii wala ñu jekku sa mbokk di ko toroxal nii ndey Ababacar Sall mii di dund am lu ëpp juróom-ñett fukki at mbaa juróom-ñeent fukki at Macky Sall ah. non Macky Sall xol bi dëgër na laa <laughs> yow yow ya Ababacar Sall mii bu yaayam dee ci diggante bi nooy def Macky Sall xalaatal tuuti boo ree yaayu Khalifa Sall nii ndax naqar nii rek nii mu mu am muy jooy nii rek parce que doomam tëj nga ko rek mu dee ci say loxo ak leneen ak leneen na ma yàlla baal na nit ñi di xalaat il faut que les gens quand même se à la place de ce qu'ils victimisent am yërmande tuuti quoi barke Sëriñ Bamba Mbàkke xol bu ca yërmande dañee dara dara dara desatu ca tey dangay gis tey ay kilifa yuy fayonte ay nit ay kilifa yoo xam ne yow kilifa diine nga ngay fayonte ak ay ay ay taalibe di ñuy dem ay tribunal di yéeg di wàcc di di di portente plainte juste pour